xibaar yi fii si UCAB FM Pape Serra Mbaye mbokk asalaamaaleykum dal leen jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi fii ci ndaam daaru alimul xabiir xibaaru digg bëccëg la gën a fës xibaar yi bokk na ca leeral dëkk bi loolee tax gën a jógati association Nour Daareen Touba ca kanam xàll wa jógee garage daaru bu njëkk gaar daaru ba jëm fa hôpital Cheikhul Khadim ba loolee nag eh, waa ca kanam jot nañ lamp yi fas yéene rek tàmbali lu jëm ci wàllu ko liggéey bi dinañ ci gën ko yaatal ci biir jotaay xibaar yi màggalu Sëriñ Abdou Lahad Mbacke ña nga ca wàllu ko wa ndaje mu doon nañ ca xayma fu ñu toll ci wàllu wàccaay doon réunion d'évaluation ba amal nañu ko matuwaay kilifa yi jël ak kenn ku ci na fañ ca toll loolu dinañ ci gën ko yaatal màggal jàkkaarloog euh, Serigne Ibrahima Mbacke boobu itam ñu amal ko lu jëm ci wàllu Ba mooy ka fa teewaloon na nguuru Sénégal euh, kilifa yi gën cee soññewaat ngir rek ko taxawaay bi dañ ci dikk gën koo yaatal moom itam ci euh, bi nga xam ne kon nemmeeku nanu ko ca njaareem ak lu jëm ci wàllu askan wa li nga xam ne kon noonu nu gisee pëccëxoo gu nemmeeku nanu ko ci wàllu politique bi ak coow li nga xam ne kon moo ci am danañ ko gën a yaatal àllarba bu jot kër docteur Gaye doon li na makkamal jotaay bi ne suuti ndikkee ci faram-fàcce ndeem soob na sunu borom. xibaar yi fii si UCAB FM Pape Cheikh Mbaye ab sayar mbay ci àddukaay gi Cheikh Bey ca machine ba yéen askan wi ci déglu bi rajo yi 403.5 téeméer ñett yu tombal juróom ngeen koy dégloo ci bande FM bi internet bi ñetti w point aditv wala ñetti w point sunfm point YouTube bu ngeen fa demee bind UCAB TV live da ñu fa mën a teewlu tey jii mbokk yi la alarba dëppoo ak fukki fan ci weeru tubaab di mai atum 2023 di fukk ak juróom-ñeenti fan ci weeru wolof di kori ci atum junni ak ñeent téeméer ñeent fukk ak jamono ji ngi ci quatorze heures di ñaari waxtu ci bëccëg yu euh, toftal euh, fanweer ak ñetti simili di 33 minutes xibaaru digg bëccëg bi. groupe de communication. université Cheikh Ahmadou Bamba. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi dal leen jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo ci ndam daaru alimul xabir xibaaru digg bëccëg gi ni leen ko waxe woon dañu koy door rek programme bu association Nourou Darayni Touba ca kanam jël nañu ko ngir rek leeral dëkk bi ay làmp yoo xam ne kon fàggande ko ti nañu ko ngir rek eh, ni ko sëriñ bi sàkkoon ci ñoom muy eh, xàll wi jóge gaara daaru muxti jaar ci kër sëriñ Sidi ca foofee nag lañ bëgg a defi làmp mu doon taxawaay boo xam ne nag kilifa yi tuubaa ca kanam àndandoo ak mairie bu tuubaa demoon nañu xooli euh, lu jëm ci wàllu ko làmp yeeg nanu koy defee rek taxawaay ba kenn ku ci nekk nag ci kilifa yi rafetlu nanu ko ci ñoom waa Touba ca kanam ak ñi waa mairie bi kàddu yi nga xam ne nag ñoom kilifa yi yëkkati nañu ko ca sëriñ Abdoul Fatah Guèye mi jiite Touba ca kanam ak lenn ci teewaayu ko mairie ñi nga xam ne ko ñooy lu jëm ci wàllu ko leeral gi sëriñ Moutalla Lo lu jëm ci wàllu ko kàddu gi nga xam ne ko jot nañu ko caa fésal ñu àndandoo teewlu ko ci micro Cheikh Amar bokk ci ñi nga xam ne lu jëm ci wàllu éclairage public ci dëkk bi moom tënk ci liggéeyal sëriñ bi di def liggéey bu am am solo ak sëñ Mor Lo nga xam ne koo xam commune bu Touba xam ko ci ay yitteem noonu lañ taxawee tamit ak sëñ Baara Jaxate mi nga xam ne moom la fi moom la fi docteur Sourang ne ñoo nekk ci hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim bee nga xam ne li tax ñu taxaw fi tey ci loolu la jëm kon santaat mbooloo mi nga xam ne teew nañ fi yëpp membre Touba ca kanam yi ngir réceptionné poto lampe yi nga xam ne moom la ñu commandé ci liggéey bi liggéey bi jëm ci wàllu éclairage public ndax ku nekk xam na ne Touba ca kanam bi muy dugg ci wàllu éclairage public leerum dëkk bi Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ci joxe woon digal jaaree ko ci Serigne Abibou nii boobaak léegi nag ñu ci def liggéey bu yaatu boo xam ne day mel ne ñëpp man nañ koo seede eh, ak si woon nag ci phase bii nga xam ne moom it bokk na ci yi sëriñ bi joxe ndigal te mooy li commencé fii nu nekk eh, di Tanahim nekk kër Serigne Sidil Makhtar yalla ñu ko yàlla dolee fayal jaar ko ci sëñ Modou Aïcha mi nga xam ne moom i membre la ci Touba ca kanam ñuy wàccee fii tey làmp yi ci buntu këram ngir ne fii xëy na moo gën a jege gën a jàpp jàppale ci ouvrier yi nga xam ne fas yéene na leen def liggéey bii euh, lamp yi ñu fi wàccee tey nag mi ngi toll ci cent quatre-vingt-dix poto cent quatre-vingt-dix poto yi moo war a tàmbalee fii ñu nekk di Tanheim kër sëñ Sidi Muxtaar ba ba muy àgg ca hôpital ba ba wër ko dañ ko xaymaa noonu lay toll bu ko defee euh, jëmmi pile bi fi war a nekk jàppandi na câble yi nga xam ne tamit moo ko war a alimenté commandé nañ ko ba ñëw na ba pare ouvrier yi nga xam ne ñoom la ñuy waxal tamit wax nañu lépp ba noppi nga xam ne tàmbali liggéey bi moo ci des loolu nag moom lañ taxawoon tey ji di ko réceptionné ànd ko ak euh, Serigne Abib yi nga xam ne ci ndigalam ci la ñuy dox ak ci kàddoom ci la ñuy waxee mu teewal fi Cheikh Mahamadou Mountakha mi nga xam ne moo joxe ndigal lii ak sëñ Mourtala Lo mi nga xam ne ci wàllu éclairage public Touba Ca Kanam di ci def dara lu dul ne da cee déggoo ñoom ndax it nag seenu domaine la li ci Touba Ca Kanam di def ci wàllu commune bi day mel ne da koy def ci biir domaine de boo xam ne ci commune jamono bu nekk dañ ci jiital sëñ Mourtala Lo mi ànd ceeg moom mu am ci taxawaay bu rafet nag ak waa commune bi ci njiital Serigne Abdoulahat euh, Ka nga xam ne lamp yi buñ ko fiy def hôpital baa tax ngir yoon bii day yoon woo xam ne yoon wu xaw a xat la ba noppi lëndëm ndax bari nañu fi jaar ñoo xam ne nemmiku nañu lëndëm gi tar na xëy na loolu moo tax Cheikh Mamadou Mountakha joxe ci ndigal sant nag Serigne Touba bu baax a baax ci lii ndax dëkku suñ Touba bi Serigne Touba du ko fonk lool comme képp ku koy taaral rek ñun ànd nañ ci mbégte te di ci ànd ak ñoom ci xel ak doole ak lépp ndax dëkk bi ku ne xam na ne xar kanam gi soppeeku na ci éclairage éclairage loolu ñëpp xam nañ ko te Touba ci kanam yi dox ci jéego yu yu kaweek yoo xam ne ñëpp teg nañ seen bët ndax euh, commune éclairage moom la war waaye Touba ca kanam feeñ nañ ci feeñ jàppale ko ci jàppale goo xam ne ñëpp teg nañ seen bët te nag bu defee lu baax des koy wax des ko nas naxal ndax man mi nga xam ne maa yor ci ndigalul Abdou Lahad Ka nga xam ne moom it dëkk bi yitteel na ko bëgg na lépp loo xam ne war la mooy taaru dëkk mu doxe ca nam ca war a doxe waaye loolee nag maa ngi koy xamal ne ko Touba ca kanam ànd nañ ko ak ñun ndax ku ne xam ne commune ak euh, Touba ca kanam dañoo wute aw doxin ndax la Touba ca kanam man ndax commune lu muy def lépp ci ay procédure la koy def mën naa yeex te nit ñi duñ xam procédure commune kon am na léeg-léeg jaadu na ñu am collaboranteeg ñu mel ni euh, Touba ci kanam loolu nag man mi nga xam ne maa ko yor man maa xam seeni jóogu yi nga xam ne ñu ngi ko ci def ak jàppandal gi ñu ko ci def ndax bari na fii nii rek ñu taxaw muy Darou Mousty ba euh, garage Darou Mousty ba fii ay kilifa kilifa woon nañ ma di wax lëndamaay Touba ci kanam lu mu def mel na ni commune moo ko def commune it ci lu mu defit mel na ni Touba ca kanam moo ko def ndax Touba ca kanam dongay seen Touba lañ yoo xam ne ñëpp dañoo jël seen alal di ko ci dugal te li nga xam ne nag ñi ngi ko ci dugal ñi ngi koy def ci dëkk bi nit ñi di ko gis joxe wuñ seen ñaar yooyu ñu leen di ñu leen di muy naax saay a ne xam ne ne ñaar yooyu mi ngi dugg ci dëkk bi ñi ngi defa ay poste de sante éclairage bi ñu ngi ci dox assainissement bi ñu ngi ciy dox defar nañ fi ay tëli loolu lépp ku a xam na ne kon bàyyi leen xel yéen mur yi lii ngeen yi def ci Touba ca kanam ma ngay dem fa war a dem di sant nag sunu waajur wii ñu taxawal muy sëñ Abibu di ko ñaanal sëñ Touba guddal fanam te wéral ko ndax lii jiite de wax dëgg taxawaay na ci taxawaay boo xam ne ñëpp la ko taxawal ndax pëstéef rek la ci doxe xoolu ci lu mu am ndax lu muy am lu ne Sëñ Tuubaa defal na ko delloo jukkal Sëñ Tuubaa moo tax mu laxasaayu doon lim lim doon mu jëkk teg ko fee comme ni ko waajuram defaroon mu Sëñ Fallu bëggutoon doon dara ci Sëñ Tuubaa doom jaag lépp da koo jël jaay ko def ko sel bi loolu moom la taxawee ci taxawaay bi yàggul gul ñaari weer Touba ca kanam indi ab ambulance bu mucc ayib ci hôpital bi ngir gën a yombal jàppale askanu Touba bi nga xam ne léeg la ñu ñëw ñu war leen évacuer fenn ci dëkk bi wala war war a wuti ay mbir ci dëkk bi ñu indi ambulance bu mucc ayib tey bu lii amaatee ñu ni toll na daanaka ci kéeméeri poto lamp ak juróom-ñeent fukk yoo xam ne dina tàmbalee fii Kër Sëriñ Muxtaar ñëw ba hôpital ba ba wër hôpital bi kooku ñun ak cant rek ak gërëm lañ ci am heure bu ñu réunion am agent yu ñëw ni ñun démb dugub dañu adressé fii wala dañu dàq wala nangam ñu waxee ci li mel directeur ni leen franc bàyyi leen ndax waa Touba ca kanam war nañ fi indi ay làmp ñaan rek képp koo xamante ni jàpp nga ci Touba ci kanam ak li nga ciy def muy sa alal wala nga ciy participer ngir ñoom ñu mën ni ni poto làmp yi war a leeree yàlla nañ say mbir Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba loolu doon na kàddu yu baw kon ci kilifa association ru daara ni Touba ca kanam ak ñeen ci kilifa yu bi ak lamp yi nga xam ne kon moom la nuy waajal foofee kon ci yoonu garage daaru bu jëm ci hôpital Cheikhul Khadim bi na ko xali général de bu Serigne Mountakha Serigne Bassirou sàkkoon si ñoom ñu wax ci leneen muy màggalu Serigne Abdoul Ahad Mbacké nekkoon ñetteelu xalif général des Mourides ñu di ko waajal tax nag démb amal na nu ci am ndaje mu yaatu doon réunion évaluation ñi doon xayma nag ak ñi yore wàllu organisation bi fan ci tollu ci la mu woon ci ndaje yi wàccaay yooyu moo xam CRD ba préfet bu département bi mooy ki nga xam ne nag moo demoon xoole lu jëm ci wàllu ko taxawaay bi euh, loole nag xalim an mi nga xam ne kon mooy préfet bu yees ànd na coupe délégation ak service yi euh, ña nga fa woon waxtaan lu jëm ci wàllu loolu yi leeral yi ak fàllu sil fii ci kër Serigne Abdoulaye Mbacke gi lañu amalee ndaje mu mujj doon càmbaraat mboolem ponk yi nga xam ne moom lañ jël ci màggalu ko Serigne Abdou Lahad gi chef de service yi nga xam ne ñoo nekkee ci région bu Diourbel ak département bu mbàkkee ànd kook comité d'organisation bu màggalu ko Serigne Abdou Lahad Mbacké gi kaaraange gi wàllum ndox mi assainissement courant bi élevage lépp loo xam ne rek jëm na ci màggal gi saytuwaat nañ ko bu baax a baax préfet bi di xamle ne mboolem matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko daañu def seen kéemtalaay kàttan ngir mën ko matale yàlla donc li ñuy fàttali daal mooy di ñi nga xam ne donc jël nañ fi engagement donc nañ ci taxaw bu baax a baax niñ ci war a taxawee léegi nii it euh, euh, wax naa pour que donc ngeen jël euh, maanaam feuille de présence bi ngeen am ko commité d'organisation bi parce que dina ci baax bu fekkee ci benn secteur bu mu mën di doon ka mu moom la interpellé directement donc comité d'organisation bi donc jéem a xool ak moom nan la nan la ñuy kii mettre en œuvre donc engagement yooyu euh, léeg-léeg it aussi xañ na parce que it bëri parfois léeg-léeg ma jot ay appel donc préfet chaque fois donc di ay appel ci kii jot appel ci kële donc dina baax comité d'organisation boo amee benn affaire ñu ñu waxtaan seen biir ba pare wala au moins donc ka ñu am kenn koo xam moom la ñu délégué mu wax ak ki nga xam donc moom moo war a mettre en œuvre loolu parce que léeg-léeg li ma ci constaté mooy léeg-léeg xañ na kenn nit kii dina ko woo kee woo ko woo ko parce que information parfois da lu circuler am na ci loo xam léeg-léeg sax dina fekk def nañ ko ba pare mais am na ko xam xañ na amul information bi donc moom itam muy woote di laaj donc loolu parfois en tout cas day am moo tax donc day baax fu ñu ci toll daal donc comité d'organisation ñu waxtaan seen biir pour xam effectivement donc lan loo xamante def nañ ko ci bu pare mais daal li nga xamante moom la ñu war def comme engagement en tout cas état jël taxaw bu baax a baax en tout cas pour que li nga xamante ni donc moom mooy euh, màggal gi jaar ci ni nga xamante ni donc noonu la gënee. Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Abdou Lahad ak Serigne Mahamadan moom Serigne Abdou Lahad ñoo fa teewloon njabootug Serigne Abdou Lahad Mbacke gi ànd ko comité d'organisation bi Serigne Amsatou Mbacke sant bu baax a baax mboolem chef de service yi ci engagement yi nga xamante ni jël nañ ko ci màggal gi rawatina seen yéene ngir mën koo matale. mel nag loolu am ngeen yéene am ngeen pas ci lu jagal màggal gi. engagement yi ngeen jël itam lu ci bari def nañ ko wala ci ëpp def nañ ko def ngeen def ngeen ko bu ci dara duxut woon tam dañ leen di sant ndax pas-pas yi ngeen am ak yéene ji ngeen am te kook noonu yëg yitte ji ngeen ñu jox yëg nañ ko yëg ngeen ñu jox yëg nañ ko faale gi ngeen ñu eh, defal tam yëg nañ ko kon nag sëriñ bi ngeen koy defal moo am seen pay yàlla na fay lu kaw seen jor moom nag ku am ku ku mën a fay bor la ndax ak ak yëngu ak dalam yëpp da koo jox sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa fayee ko lu ñëpp teg teg bët ndax fu masaa waxe ñëpp déglu ko fu mu ñëpp yéemu ci ak ay ay jëfam te wanewul boppam sëñ Tuubaa rek la wane bi mu fi jógee tam li li li yàlla gën a fonk muy alxuraan xasee moom la dëkkaale kon kooku sëñ Tuubaa tëbb na ko kàttan kàttan googee nag yàlla na ca sàkk tëbbuñu ko nun ñëpp ba li ñu yéene ci moom ñu am ko waaye li mu yéene ci nu itam na am ko laat kayo itam ñu ngi lay sant baax ci sa yitte ji xam naa juróo sant sax ndax ci kër gi nga bokk waaye nag gis nañ sa taxawaay gis nañ sa yëg gis nañ sa yitte kon ñu ngi lay sant baax di gërëm maire bi yaa ngi ciy bu baax waaye boo jëf ci noonu sa alali bopp nga génne di ko jëf barki dem bi may liggéey rek da nga ne alali maire waaye sama alali bopp laa jël yabal say oto yi lépp kon nag ñu ngi leen sant di la gërëm di leen ñaal ñu ñu màggal ak jàmm te gën ci jàmm te ki jiite màggal gi muy sëñ Sidi ak sëñ Mountakha mi kilifaam yàlla may leen gudd fan gu ànd ak wér. ci fàttali màggalug Serigne Abdou Lahad Mbacké gi mi ngi war a doon dimanche dëppoo ak le di ñaar fukki fan ak ñett ci koor yi di bis bi nga xam ne ci la gane woon àddina loolu doon kàddu yi kon mu ngoog euh, leer yu Serigne Fall Sylla bu asalaam yi moo doon fésal euh, lu jëm ci wàllu ko waxtaan wu ñu ngi ko ca doon amal mbokk yi ngeen ñu topp ci 103.5 rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi bawoo ci ndaam geneen màggal goo xam ne nag amal nañu ko pare mooy màggalu Serigne Ibrahima Mbacke màggal googee nag ci jotaay bi doon nañ ko ca amal moom euh, kii di Gallo Ba ministre yore wàllug euh, formation professionnelle mooy ki nga xam ne kon moo teewaloon nguuru Sénégal ci wàllug ndaje moomee moom galo Ba nag indi bataaxalug euh, njiitu réew mi waaye itam sàkkuwaale ñaan euh, ci réew mi ak itam yan bi nga xam ne kon gàll nañu ko ca ngir mu mën a matale liggéey bi nga xam ne kon moom lañu ko ca sas moom Gallo Ba kon ci lu jëm ci wàllug ndaje moomee ñu doon amal doon cérémonie officielle lug màggalug Serigne Ibrahima Mbacke gu doon nañu ko ca amal kàddu yi nga xam ne nag jikko jotuñ ko caa yëkkati moom ministre bi rafetlu waat taxawaay bi kàddu yi euh, gàlloo ba ci cérémonie officielle bi nga xam ne kon doon nañu ko amal muy màggalu kër Serigne Ibrahima Mbacke gàlloo baax ñu àndandoo teewlay kàddoom mu mel ne Gallo Ba kon jàppandeegul di fàttali rek màggalug Serigne Ibrahima Mbacke ci eh, cérémonie officielle bu doon nañu ko ca amal moom ministre galo Ba doon waa Mbacke mooy ki nga xam ne kon moom moo teewaloon nguur gi foofee kon ca jotaay ba jàppandi na Gallo Ba ay kàddoom ci cérémonie officielle bi ñu teewlu ko. mooy kàddu ci tout président de la République Macky Sall li nga xamante ne moom xam na dayoo bis bi xam na ne bis bi ba suñu Sëriñ Tuubaa. moo tax saa su ñëwee dinañ fi yabal délégation ngir bokk si ci liggéey bi ngir ñëw feddali kóllëre ñëwul fekk ñëwul sàkku ay ñaan délégation boobu nag ràññeeku bu baax a baax sëñ Abdou Lahad Gaynde Fatma nga xam ne doom ci kër gi mi di ministre conseiller ak le gouverneur de région de Diourbel ak tamit le préfet bu département Mbacké ak it mbooleemu chef de service yi nga xamante ni ñu ñoo nekk ci département bi ñu ànd ko it ak sunu yaay soxna Pamba Diop honorable député ak soxna Mariama Sall au conseil des collectivités territoriales waaye te mu ngi ànd ak le premier adjoint au maire de ak responsable yi xamante ne ñoo bokk li nga xamante ne ñoo bokk liggéey bi ak marabu yi nga xamante ne ñu ne leen wooyee marabu républicain yi jàppale président de la République département Mbacké kon sëñ Fallou ginnaaw bi ñu la dégtalee nuyoo muy président de la République ak ziaram président daa waxoon bu ñëwee ba si yow ginnaaw bu sant bu baax a baax sëñ Dame Abdourahmane nee na mu ngi feddali kóllëre gi digganteem ak njabootu Cheikh Ibrahima Mbacke gépp waaye tam digganteem ak sëñ Dame Abdourahmane ndax nee na xam na bu baax a baax tey gis na niñ ko jàppalee niñ ko taxawoo tey it xam na bu baax a baax fi ko teg ak fi ngeen teg taalibe yi te benn yitte rek la mooy fexe nu muy ñoŋalee nu mu askan wi ci réew mi loolu nag day ko cee jàppale bu baax a baax jàppale ko ci tey jàppale ko ci démb jàppale ko ci bërki démb moo taxoon bis mel nii bu ñëwee nga xamante ne ku ne xam na taxawaayu sëñ Cheikh Ibrahima Mbacke ci yoonu murid ku ne xam na ni mu fàggoo woon bu baax a baax ba fi nga xamante ni fa la waajoom tegoon tànkam yu sell mu teg fa ay tànkam mu jaral ko dem fi ba Gabon pour mottali yéene waaye tamit àggale liggéey ku ne xam na dayoo bis bi ku ne xam na dayoo borom bis bi moo tax président de la wax ne bis bi àddana lu nekk moo xam bu ñëwee na fat na fëddale bu baax ko la nekk mu ngi leen sant bu baax ci seen jàppale démb ak bëkki démb waaye tamit mu ngi fat mu ngi sàkku ñaan ci réew mi ndax réew mi jàmm rek moo fi xaj tey mu ngi sàkku jàmm ji law ci réew mi ba li nga xamante ni moom mooy yitteem te dara génnul ci liggéey réew mi dara génnul ci it fexe ba dund askan wi dund Sénégal yëpp am fu yegg ci wàllu jumtukaay ak ci wàllu tawféex yàlla jàppale ko ak say Tuubaa ba mu àggal lépp moo taxoon mu ne bu ñëwee na fexe ci turam ak suturu bopp ñoo sàkkul ko ñaan yooyu ñaan ci réew mi jàmm ñaan tamit nawet bi nga xamante ne ñu jëm te ñu koy waajal mu nekk ñu nawetu jàmm nawetu xéewal yu bëree bëri yàlla baaxe ñu ndax mu bari ak ndax mu barkeel a nawetu barkeel di daaneel nag sama turu bopp ndax jàpp naa ne ni mu ko waxee sëñ bi dem sànq naa ci nga xamante ne ñoo war dalal gan yi ndax dama bokk ci délégation président de la république jiite waaye tamit dañ fee teew tey ci turu mairie Mbacké ci turu Mbacké teew fi teewaayu taalibe teew fi teewaayu doom ndax sañ nañoo bu baax nag wax ne tey fi nga xamante ne fa lañu àgg ci wàllu taxawaay ci li ñuy wax politique waa Mbacké ñooñu fa àggale ginnaaw bu ñu président de la République bu baax a baax tey at bu nekk wala saa su ne mu feddali kóolute googu jëm ci ñun kóolute googu nag li ko lal cëslaay mooy kóolute bi nga xamante ne moom la ñu waa Mbàkke jox ba dénk ñu dëkk bu sell bi di Mbàkke tey ñu fas yéene incha allah taxawaa am taxawaay man sëkk xar suñu tànk tubéy ba li nga xamante ne ni moom mooy bëgg-bëggu askanu Mbàkke bëgg-bëgg département bu Mbacké ñu am ci taxawaay boo xamante ne dina fex dina dina bokk ci li nga xamante ne nii dina soppi xàttaliku dëkk bi loolu nag yaakaar nañ ci bu baax waa Mbacké yépp tamit président de la République Macky ndax ni ma waxee saa su ne rek bi ñu laaj Mbacké dañu waxoon ne bu dee dañu yaakaar budget Mbacké maanaam koom-koom bi Mbacké dañ jur at mu nekk te àggut milliard mën naa ne luñ laaj dëkk bi dañoo laaj Mbàkke ndax dañoo bëgg fi nga xamante ne nii fa toog ku nekk di xeexal sa ba projet yi ak programme yi nga xamante ne moom nas ci réew mi war koo tasaare ci at ci réew yëpp Mbàkke kenn bañ koo ëppale cër ci projet yooyu ak yooyu loolu nag président de la mu ngi ciy jàppale kon bu ñëwee fii day baax it ñu yeggal leen kàddu yooyu sëñ bi di sàkku ñaan sutura bopp yàlla oyofal yan bi tey li nga xamante ne moom la waaye Mbàkke yaakaar si ñun yàlla jàppale ñu. amiin ba lépp am incha allah. loolu doon kàddu galo Gallo Ba ci cérémonie officielle u màggalug Serigne Ibrahima Mbacke gu moo fa teewaloon nguuru Sénégal laata sax mu doon yëkkati eh, kàddu foofee kon ca jotaay ba njabootu Serigne Ibrahima Mbacke rawatina yore wàllu comité d'organisation bi doon nañ ca àddu eh, Serigne Cheikh Abdou Mbacke. doon kenn ci njaboot gi moom nag yëkkati na fa ay kàddu rafetlu taxawaay mbooleem taalibe yi waaye tam kàddu yu soññee yoo xam ne kon jot na ko faa yëkkati ci màggal geeg nañu ko fas yéene ak waaye te war ko caa taxawoo ay kàddoom ñu àndooteelu ko. ginnaaw bu mu santee gërëm ci bokk yeeg wëllëre yi ak dëkkandoo yi dëkk ci gox bii ñu mën cee tudd ku mel ni soxna Fatma Diop ak borom këram euh, Papa Ndiaye ci taxawaay bu rafet bu ñuy am ci bis bi bu ràññeeku joxe seen kër génn ne ci biir organisation bi yëkkati seen alal def ci Euh, sëriñ bi nee na Cheikh Ibrahima mi mu leen doon wooye de ak bis bii mu ko jàppal di ko ko defal nañu képp képp ku ci participer na nga xam ne la nga def sëriñ Touba nga ko defal lépp lu waay defal sëñ Touba nag xam nga la cay mujj ndax Cheikh Ibrahima mii kenn la ci njabootuk sëriñ bi bu ci yemoon rek jara jëfal jara liggéeyal ngir jëmmi sëriñ Touba bi nga xam ne amul lu dul moom waaye itam dafa doonoon ku ràññeeku ci liggéeyu sëriñ Touba bii ba nga xam ne fépp fu yoonu murit egsi tey jii ci ndimbalul yàlla ab liggéeyam a nga ca ndax bi muy nekk ci kanamu sëriñ bi léppam sëñ Tuubaa la woon moo doon way juram waaye moo doonoon sëriñam bi mu noppee gis sëriñ bi itam topp ci ginnaaw ay magam lépp lu ñu mës a yëkkati ngir jëmmi sëñ Tuubaa kenn mënu ko ci yitteem yépp daf ko jëme woon ci projet sëñ Tuubaa yi mu fi bàyyi woon waaye daf koo jëme yitam ci njabootuk sëriñ Tuubaa gi muy njabootuk boppam gi muy ñi ko ci mag ak ñim ci mag waaye itam muy taalibey sëriñ Tuubaa yi bari na fu yoonu murit àgg ci réew mi ak bitim réew Cheikh Ibrahima Mbacke moo ko fa yeggale ku yàlla dimbali woon la itam ci ay mbir yu yu yu yu fasantikoo te lépp di loo xam ne diine ji daf koo aajewoo yoon mi daf koo aajewoo mbindeef yi dañ koo aajewoo muy baatin bu tembare bu fees del aaje woo ci ndimbu ci dimbali nit ki moo xam ci wàllu wér-gi-yaram walla jaaxle wala nga nar am gàcca wala problème bu mu mën a doon lim ci saafara ci baatinam ci lu tembare te lu ñëpp xam bu ñu toogoon fii di ko lim du jeex kon loolu ab liggéey la bu ko matee yàlla dimbali woon na ko itam muy ku teeloon a man boppam waaye loolu yëpp ci mbindeef yi la ko jëme woon di faj seeni aajo di leen solal di leen woddu di leen lexal di leen dimbali dimbal loo xam ne amu ci woon xaj ak seen fii la nekkoon jàppandi lool ku disponible la woon ku tabe la woon ba yéeme ci ak tabeem waaye ku lewet la woon kon loolu yëpp daf koo jëlaat liggéeyale ko yàlla ci mbindeef yi waaye itam Cheikh Ibrahim ci xam-xam bu bari ba bari woon xam-xam lool te it li ko doon gën a neex muy wootal nit ñi ci seen i njëriñ bañ ñëw wuy si ko ngir jariñu ci moom ci zaahir mu dimbali leen ci bàtti te mooy xamal leen yàlla xamal leen sëñ Tuubaa xamal leen seen bopp xamal leen ne dañoo war a am jom góorgóorlu ci mën a yor seen bopp kon nag ko bisam lu mat a taxaw la buñ ci boolee nag bis bi bis bi i bis bu baatine ndax dafa sofu ci bisub sëriñ tubaa ndax Cheikh Ibrahim sëriñ tubaa da koo jagleel liggéeyam bi ëpp doole ci ay liggéeyam muy yoonu géej gi Sëriñ Tuubaa def koo dimbali jagleel ko ci aw sas may ko mu bayal ko ko ba pare dimbali ko nag ci kàttanu yàlla mu bay ko ca mbay ma gën a rafet moo leen lum ko ci sartoon Cheikh Ibrahima defe ko na ko sëriñ bi bëggee woon moo tax bi ñu koy wutal bisub ñaan ak fàttaliku ñu jàpp ko ci bis bi nga xam ne ci la fi jógee woon doxi ci jéego yooyu nga xam ne moom la wax ne sëñ Touba moom la ko santoon ngir mu toppali ko ay tànkam ci tukkib géej gi ngir mottali ko li mu ati géej gi yàlla defal ko ndimbal mu dem defe ko ne ko sëriñ bi bëggee woon lu mu ko ci santoon mu def ko ba dellusiwaat fii ci réew mi ba mu ñëwee la ne moom lii moo doon mission bi ko gën a ñor kon moom pare na ci àdduna ci lay waaj dellu yow mal xiyaamati lakk baax te na mu ko waxee woon la ko defee loolu yëpp nag tax na kii daal ku ne mat a wutal bis de waaye moom moo ci raw ndax bis ci bis sëñ Tuubaa yi la kon képp ku ci jëf na xam ne sëñ Tuubaa nga jëfal képp ku jëfal sëñ Tuubaa na nga xam ne yàlla nga jëfal sëñ bi nee na mi ngi sant donga waaye li ko gën a ñor ci ñoom mooy ñaax leen rek ne leen daw leen góorgóorlu leen barantu leen farlu leen ci liggéeyal sëriñ Touba ndax yowmal xiyaam balaa yañ fay peese amu ci jenn jëf ju gën a diis liggéeyal sëriñ Touba te àdduna luy jeex la kenn xamut kañ la ci sa wàll di jeex te ñun murid ditam ba ñuy jaayanteeg sëriñ tubaa dañoo jaayante àdduna ak àllaaxira muy ndigal lu sëriñ Touba am ci woon nit ñi ci ñu jaayanteeg moom ngir yàlla na ko yàlla suñu borom diggante woon diggale woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal ñi ñu jaayante jaayante nag ku ko def mooy la nga am lépp da nga koo jaay moomatoo ca dara la ngay moom lépp danga koy yor ngir fàggoo ko ngërëmul yàlla loola nag sa alal day dugg ci biir sam xel da cay dugg sa xam-xam da cay dugg sa wér da cay dugg loolu nag ku ko jaay amatoo dara yii yëpp nag bépp murit bu jaayante te xam li nga jaayante lu mu doon loo ci fàggu danga koy wut ngir mën koo fàggu mën koo jekkoo ndigal waaye doo wut fii ci àdduna ay alal ngir di ko jagloo loolu nan koo xam te góorgóorlu suñ kéemtalaayil kattan sëriñ bi nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp man Abdoulahi bi maa ngi tuub ci képp koo xam ne dama laa war a tudd wala lépp loo xam ne nii dafa des ci waxtaan wi ñu ngi koy jéggulu bu baax a baax te xam ne sunu matadi la waaye li ñu sëñ lu waxoon matale na. rajo. UCAB gornooru njaareem na mu ko dooroon fan ya tey ji ma ngi koy wéyal muy tournée économique doon wër moom lay fas yéene wër gox bi ngir rek mën a xam dëgg-dëgg lan muy yitte askan wi ak naka lañ ca fas yéene taxawoo ginnaaw ba mu demee nag fan yee ca arrondissement bu Ndulo jamono ji nag ma nga dugg rek ca boori Baba Garage ak euh, Lambaye googee foofu sax la ñuy dem fekk fa Moustapha Ndiaye mustafaa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay uh, fay Pape Saer aha jamono ji yaa ngi ci délégation bi tournée économique bu gouverneur moom la sumb dooraat ko niki tey ji fan ngeen ci tool fu ngeen jëm. waaw noonu nga ko waxee jamono ji uh, Pape Saer uh, ñu ngi ci tournée économique bi gouverneur de la région Diourbel a Fall di amal noonu yi ma la ko waxee nag ñu ngi ci jamono ji la nag tey ji ñu nekk file ci département Bambey ñu fas yéene def nag ñetti dëkk maanaam Dingiraay Baba Garas ak Kër Samba jamono ji la nag uh, may wax ak yow uh, Pape Sarr uh, def nañ fi nga xam ne rek moom mooy Dingiraay bi ñu xëyee la ñu fa dem visiter fa ku ci bëri ki di Ibrahima Fall ak délégation bi ñu àndal dem ci benn village bu ñuy wax Ndiédiène foofu bañ fa demee benn primate maraîchère bu fa nekk maanaam mbayum noor ci la ñu ko visiter xool ana li seen jafe-jafe ak itam li nga xam ne rek fas nañ ko cee jël ci ay matukaay jóge ci li nga xam ne rek moom mooy kilifa yi Pape ba ñu fa jógee tamit ba tey ci commune bu Dingiraay dem nañ ziare kilifa gi di Serigne Abbas euh, Gadiaga mi xalifa euh, Dingiray euh, gouverneur de la région de Diourbel di Ibrahima Fall dem na fa amal li nga xam rek moom mooy ab ziaram ak délégation bi mu àndal foofee nag di Dingiray ki ko teeru di kile di Kébé ga mi nga xam ni moom mooy maire bu commune bu Dingiray ak it délégation ba mu àndal bu ñu fa jigee nag Pape ñu ngi fii ci commune bu Babagara fii tamit bi ñu ñu fekk fi mbooloo mu takkoo takku fekk fi kile di maire bi di Modou Fall Ndiaye délégation bi nga xam ne àndal na ko ñu ñëw fi nag ci périmètre bi nga xam rek moom mooy périmètre maraîcher bi nekk fii la ci kër Ousmane Kane ah, di yëngu ci wàllu mbay fii tam biñu ñu xool ne am nañ li la di jafe-jafe ndox loolu tax ki la di gouverneur de la région de Diourbel Ibrahima Fall di xam ne ne nañ ci jël ay matukaay PAPSER jamono ji kon PAPSER ñu ngi nii ah, di départ mu des kon ñetteelu étape bi nga xam ne fas nañ ko amal muy commune bu kër Samba garage ah, ñi ngi fas yéene dem kon xam ne rek moom mooy ah, kër ah, Samba Kane jamono ji xam naa kon incha allah rabi Pape Saer dinañu ci dellusiwaat ay kàddu yu ñu la di kilifa yi yëkkati nañ ko ci jotaay yi nga xam ne jot nañ ko amal foofee ca commune bu Dingiraay amal ko tam fi nga xam ne rek moom mooy file di Baba Garage incha allah rabi dinañu ci ñëw Pape kon mu nekkoon Mouhamadou Moustapha Ndiaye fii ci euh, Baba Garage ngir jëm Kër Samba Kane ngir rajo UCAB FM. jërëjëf sant ko gërëm ko baax a baax Mouhamadou Moustapha Ndiaye ci leeral yooye di tournée économique bu góornoor moo ko sumboon kon fan yee ginnaaw ba mu ko tàmbali ca Tooki Gaar euh, dem ca Nduloo ko dëkk yooyu ko wër doon Touré Mbond ak yeneen ya ca aju tey ji kon ma nga noonu ca département bu Bambey euh, Lambaye ak Baba Garage ak ruq yooye ma nga noonu kon fa bu jëm ca Kër Samba Kane incha allah rabbi danañu ci dellusiwaat njaareem la ñuy dem foofee nag wax ci wàllum politique Ousmane Sonko ki mbiram ay jege ñaareem naka la ñu gisee coow li nga xam ne kon moo topp Ousmane Sonko jamono ji rawatina àttewaat bi xam ne kon doon nañu ko xoolaatu ko luñ bët digganteem ak Mame Mbaye ña nga daan yi gàlluwaat ci kawam bañ ñu ne njort nañu sax ne boo saagum te am gàllankoor ngir rek mën a bokk ci wàllu ko jogante yi waaye itam ñagas ñagas bi ñu bëri ñu ngi koy njort digganteem ak Barthélemy Diaz ñenn ci ay jege ñaareem naka la ñu gisee lu ñu mel sunu naataangooy Baol Times ñoo doon doxantu ca mbedd yi ñañ ci gis ñu teewlu ren. gars yi moom seen naka ñu njëglante ñuy def nii gone yi doog a juddu sax mm, xam na ne loolu yanul ma wala yanu maana ak lu yanul maanaa ku ko dégg ku nekk war na kaa xam nan bàyyi doomi jàmbur ji mu def li mu war a def si réew mi xale yëpp Sonko la ñu àndal ngir yàlla. li ma si mën a gis daal mooy bu fekkee ne appel am na yaa ngi dégg na ñaan appel parce que moom euh, wax dëgg yàlla ci réew mi la bokk war naa mën a nekk candidat waaw Ousmane Sonko war naa te leader la nañ ni gars yi nekk leader. dégg nga te ñu ñëpp bu ñuy bu ñuy euh, nekk si réew mi di xëccoo man am naa yaakaar na defar réew mi tax ñuy xëccoo mais du yàq réew mi waaw. kon nag li problème ba daal mooy man su ma nekkoon sama gis-gis daal mooy mën nañoo seral lépp rek jël mbir mi teg ko si li nga xamante ni mooy norme bi daal ñëpp man a dem élection mën a xool kan mooy nekk daal euh, euh, palais daal. projet boobu nag projet politique la rek parce le plus rapidement possible balaa mois d'août parce que xam na ne mois d'août bu si xasee weesu code électoral bi kenn dootu ko mën a teel laala fii moo tax ñuy profité di sukkandiku naan ay ay ay ay bu ko condamné 6 mois avec sursis duñ ba nekk mais Ousmane Sonko moom incha allah kenn mënu koo tere doon candidat bu soobee suñu borom boppam rek Ousmane Sonko na ko bàyyi mu dem te xam ne Ousmane Sonko jeunesse bi ñoo ko xas a topp ñëpp si jeunesse bi si moom la ñu àndal kon Ousmane Sonko am na benn projet boo xamante ni benn projet politique boo xamante ni xës na koo jaay jeunesse bi ba ñu bëri adhéré yu si Sonko moom kenn mënu koo teree doon candidat loolu moom wax ju yàqu la seen layam layameeg liim liim yëpp loolu la ñuy yóotu mais Sonko kenn mënu koo teree doon candidat bu neexee yàlla te politique affaire jantal mel na pour man parce que nit bu amee ambition pour bëgg pour bëgg pour bëgg a jiite réew yi tamit pour man tamit aussi moom kenn ku nekk am nga sañ-sañ parce que code parce que parce que parce que code bi lu mu wax dafa leer nit bu amee plus de 35 ans am nga droit poser candidat pension bu fekkoon na boppam moo ko tax a jóg kon day si politique parce que fi mu nekkoon ay milliards fa nekk damay jàpp ne xaalis moo ko waral rek wala réeroo bu moom bu ndaw waaw loolu moom ndax ab xaalis moom comme sàkkamtuma euh, kilifa ma ko diine lay ab xaalis bi moo jaxase kon waxantuma euh, doomu aadama. waaw loolu moom xam naa ne moom si ñoom ñaar la rek parce que moom mbir moom bu jaxasoo rek si ñaar rek xam naa ne si ñoom ñaar ndax la tax mu jaxasoo xam naa ne ñoom ñoo ko xam mais Ousmane Sonko moom ku ne xam na ne daal moom waxam moom waxi bëgg réew mi la rek moom. waaw bëgg réew mi ba ba jot si si jàmm ak salaam teg si tamit toujours daal ni ndaw ñi man di xëy di gont dégg nga di liggéey di dimbale seen waajur daal moom euh, toujours daal gis naa ne daal ci biir waxam daal dina si wax daal waaw loolu man loolu man loolu man du ma ko tuddee ay jaxasoo man loolu man réeroo wàllum politique politique moo demee noonu parce que ñun waa coalition yooyu askan wi ba ñuy fal seen coalition dañoo ne woon bu ñu demee élection dañuy ànd élection locale ànd élection législative bu ñu demee ba élection législative yi weesu présidentielle képp ku bëgg a nga demal sa ku dem deuxième tour ñu jàppale la te Barthélémy Dias si rôlam la nekk man je suis Sonko mais Barthélémy Dias si rôlam la nekk moom Khalifa Sall lay àndal moom lay jugee am na plein droit défendre Khalifa Sall comme ni ko Bassirou Diomaye Faye Pastef mën a defee ak Birame Souleye Diop ak ñun ñi nga xam ne ñooy défendre Ousmane am na ci droit c'est loolu lépp dañoo bëgg divertir rek dañoo bëgg divertir si ay détails Barthélémy Dias wax ne lii Ousmane Sonko Barthélémy Sénégal nekk si jàmm ñuy bàyyi ay élection yi ndam parce que élection yi nii bientôt ñu ñu commencé déposer candidature te kenn kenn xamagul kii bokkoo dul bokk xam nga loolu tamit rafetul ci réew on est en démocratie kenn ku si nekk dañ war a bàyyi nga libre wax sa opinion jaay say projet bu ko jeunesse bi bu nit ñi bu say projet ñu ànd seeg yow bu si nit ñi nangu ñu dem xool keneen ku leen neex ñu fal ko moom mooy dëgg mbokk yi ngeen di ñu topp ba tey ci 103.5 rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo ci ndaam daaru alimul xabir ñetti waxtu ci bëccëg juróom-ñaari simili moo bootu ci kawam euh, xibaar yi ni leen ko waxe woon rek kon ci ndar képp gi ni nu ko baaxu àllarba bu jot kër docteur gay Euh, docteur Gaye nag tey di dikk di waxtaan ak ñun ci euh, lenn lu daanaka dañu koy faral di ko nemmeeku mooy euh, jékki-jékki rek ñàkk sa bakkan mu doon mort subite léeg-léeg mu indi jaaxle ci askan wi lay sabab loolee lan moo ko mën a faral di indi docteur Gaye ñu ànd ci ak moom. kër docteur Gaye àllarba bu jot fii ci UCAB FM jërë ngeen jëf amaan ak kontaan di ñëw seen rubrique santé si rajo UCAB FM na ñuy ñëw di waxtaanee thème bu am solo muy moor subite mort subite nag buñ ko xoolee euh, mooy faatu goo xam ne dafay gaaw maanaam nit ki da koy fekk si benn activité wala mu fekk ko muy nelaw wala mu fekk en tout cas loo xam ne daal c'est brutal loolu mooy mort subite euh, ñuy waxtaanee nag li nga xam ne moom moo koy waral tey ak euh, devant boo koo gisee ne nit ki dafa commencé daanu avant muy def loolu yow en tant que koo xam ne tey jii peut-être si wàllum wér yaram xamoo ci lu bari nan nga war a doxalee. Euh, kon li nga xam ne moom lay manifesté woo moor mort subite ñu si bari dañu naan ah, nit ki kat tey ñi toogoon. mu faatu noonu mais boo xoolee y a des yoo xam ne daf daan am daan na ko arrivé ndax boo xoolee morse bi di koy ëpp lu mu koy joxe lu mel ne tension wala arrêt cardiaque genre bokk na ci. te boo xoolee jamono ji di gis nañ ne presque nit ñu si bari dañoo amee tension que soit ñu dem hôpital faj ko wala fajuñu ko mais ñu ngi dox ak tension boo xam dafay yéeg hypertension artérielle. kon gis nañ ne hypertension artérielle bokk na ci cause yi nga xam ne moom moo gën a fréquent par hypertension nag wax nañ ko li nga xam ne wax def nañ ci ay waxtaan yi nga xam ne moom moo koy faral di waral euh, lekk gi nga xam ne tamit dañ koy faral di lekk léegi nga xam ne amul contrôle sédentarité bi nga xam ne léegi nit ñi dañ koy def nga xam ne dañuy lekk di toog duñ def benn activité koo ci wax mu ne pour pourtant man damay liggéey damay xëy di liggéey te dañoo war a xam différence entre liggéey ak ak ak ak sport ñoom ñaar wuute nañ kon euh, yooyu yëpp day day baax ñu xam ko en tout cas hypertension artérielle boobu nga xam ne nit ki bu ko amee taux de cholestérol am des fois dafay yéeg li ñu naan dyslipidémie euh, mën nañ dem sax ba nga xam ne da koy day ànd ak diabète yooyu yëpp nit ki am ko mais mais mais mais tamit bu ko amee tamit du question hypertension parce que nit ki bu amee tension artérielle am na ko plus de cinq ans dix ans parce que hypertension artérielle à part cas yi nga xam ne dañ koy am muy ki nga xam ne day day ëmb nga xam ne benn période la nit ki da koy am lu yàgg que ce soit muy am ay signes yuy génn wala amuti signes yuy génn moo tax mort subite moom d'habitude ñu koy am yëpp da daan nga leen dégg avant ñuy def loolu daan nga leen dégg ñu naan la man damaa amee asthme wala wala wala man damay toog di gaaw a sonn lu ma def damay gaaw a sonn wala sama dënn bi des fois day picoté day jékki-jékki jam wala damay am ay palpitations fi bi di tëf-tëfi yooyu yëpp c'est des yoo xam ne nit ki bu ko amee dafa war a dem dans l'immédiat gis benn euh, médecin euh, ndax au moins mu def ECG électrocardiogramme ñu xool ba xam xool bi amul amul jafe-jafe ndax d'habitude mort subite si bëri boo xool bi da bokk à yenn yi nga xam ne dañ koy faral di gis muy ay ay crise d'asthme ndax nit ki tamit mën na mën na toog jekki-jekki def crise d'asthme si guddi gi daal di kii mais boo xoolee sax kooku dana jël temps jël yóbbu hôpital malheureusement mu gaañu si yoon wala mu dem hôpital prise en charge ba foofu xawoon a yeex kër gaa ak genre yooyu mu mais yi nga xam ne moo ñu gën a kii mooy nit dangay da mu jékki-jékki di dox wala mu toog a yow di añ si bool bi rek mu jékki-jékki daa am ñooñu moom la plupart ñu koy def arrêt cardiaque te arrêt cardiaque yooyu boo ko xoolee li si nekk si ginnaaw tension bokk na ci euh, kon nag nit ñi dañoo war di gën a am habitude di dem hôpital di dem di xool chaque six mois yu nekk bu ñu ko mënul six mois chaque at bu nekk ñu dem hôpital xool seen yaram ñu defal leen bilan général ñu xool seen taux de cholestérol xool seen i rein xool seeni xool seen xool daal def électrocardiogramme xool xol bi ba xam amul ay fatt-fatt wala genre parce que liñ naan ay angoor ak genre yooyu da gis nit ki jékki-jékki ne yii sama dënn bi day métti xaw a wañaaru tuuti affaire yi sedd mu toog dem defaat ay activité am yooyu yëpp dafa nekk signe yoo xam ne que en tout cas bu ñu si bëggee moytu daal il faut que nit ñi di def de façon précoce di dem hôpital di jéem a kii comme jamono ji toll na foo xam ne moom léegi kenn wératut ñun agence de santé yi sax wératuñ kenn kenn wératut parce que lekk gi ñu lekk baaxatul euh, mode de vie bi baaxatul climat bi baaxatul dara baaxatul pollution atmosphérique bi fi amag yooyu yëpp kon il est temps nit ñi nañuy faju comme ni ko euh, gars yu baax yi daan waxee rek comme que mënuñoo ñàkk a lekk moom nañuy lekk waaye nañuy faju tamit kon loolu daal leen andi woon jërë ngeen jëf di merci beaucoup. kër docteur Gaye àllarba bu jot fii ci UCAB FM xibaar yi fii ci UCAB FM Pape yi ñu sant leen gërëm leen loole fi ruusoon ci ay xibaar ñu leen ko doon jottali Pape Sayer Mbaye moo fare woon ci gi machine bi Cheikh Bey laata ñuy tàggoo ñu fàtt leen la ci gënoon a fees groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. la gënoon a fees ci xibaar yi na ko sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basiru bëgge woon waa association Nour Daari Touba ca kanam ña ngay tàmbali liggéey ba lamp yi war a jóge ca gaara Daaru Musti ba jëm ca hôpital Cheikh Ahmadul Xadim ba lamp yi egsi ko ànd ak mairie naka fas yéene lëkkaloo amal liggéey bi jot ngeen teewlu kilifa yi la nga xam ne kon jot nañu ko ca fésal ci ay kàddu ci biir jotaay xibaar yi màggalu sëriñ Ibrahima Mbàkke amal nanu ko Galo Ba moo teewaloon gouvernement bi ci cérémonie officielle ba kilifa yi lañ ci jot a fésal ci ay kàddu jot ngeen koo teewlu ci biir jotaay xibaar yi laataaloo itam déglu lu jëm ci wàllu wàccaay màggalu Serigne Abdoul Ahad Mbacke gu ñu ngi koy waajal loole nag tax ñu doon amal ndaje moo xam dañ ci doon xayma fu ñu toll ci wàllu wàccaay wi réunion d'évaluation la ñu koy tuddee mu doon rek mboolem chef de service yi lañ diggee woon ci ndaje yu njëkk ya lan lañ ca def lu ca des loolu lañ doon xayma fu ñu ca fàllu si la bu asalaam yi doon noonu indil ay leeral ci lu jëm ci wàllu ka lañ fa jot tënk ci jotaay xibaar yi wax nañu itam jëm ci mbirum uh, lii di tournée économique bu kii di gouverneur mi ngi koy amal jamono ji jàpp yoon jëm kër Samba jot ngeen teewlu leeral yi nga xam ne Moustapha Ndiaye jot nañu ko indil ci biir jotaay xibaar yi ko topp jamono ji ay ñooñam ci njaareem naka la ñu gisee lu ni mel ñu ne nag daanaka ak singili la ñu ko jàppee ka koo xañ mu bokk ci wàllu jogante yi digganteem ak kii di Barthélemy Dias itam ñu ne daanaka du coowal dara ne nag kenn ku ci nekk sa taxawaay lu yell la te nag loolee mbirum politique rek la te nag lépp mën naa indi saafara jot ngeen teewlu ñenn si ñoom lañ cey jota fësal ci biir jotaay xibaar yi ñu jeexale ko kër docteur gay tey nag docteur Serigne Mor gay bu Kilni Magi Mag ca Njóobeen lam ñu doon waxtaanal mu jëm rek ci mort subite mooy jekki-jekki ne këndëng sa bakkan yam fa loole lan moo koy faral di indi loolu lañ doon waxtaanal ni ki tey doon pàcc bi këmmal jotaay bi ñu sant di gërëm ñëpp ñaan doon ak ñun ci rajo bi 103.5 UCAB FM di téeméeri ñett yu tombal juróom wala ci internet bi ñett w point sunu fm point com wala ñett w point wala sax ci youtube bi ñuy sant di gërëm ñëpp di jaajëfal Cheikh Bey mi nekkoon ci machine bi ba ngeen mën koo jot Pape Saer Mbaye nekkoon ci àddukaay gi yéen askan ci déglu bi sunu programme day wéy rajo bi waxtaanu sëriñ Sambay ngeen cay am yeneen ci ay programme ci tele bi ñi leen di jaajëfal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sunu bopp buur laaw moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na nu defal kenn dalu jàmm yeneen xibaar 20h jërë ngeen jëfati.